Sénégal Plus. Euh, une histoire euh, euh, de jeunesse, de jeunes. Dendan concours euh,

ñi ma wër daal ni comment ñii de xanaa dañuy gànda gàndalu jamono yooyu def tuuti rek ñu ne gànda gàndalu ma doxee fële rek amoon sama benn cavalière bu mën fecc ñu déggu ba dee ma won ko dara waaye mu jaar école ñu jàngal ko ma ne comme bëgguma woon ñi ma ñu jël ndaare bu jékki-jékki dugg ak ndaw si ci piste bi dañuy fecc di fecc di fecc di fecc ma di ko wëndal wëndal mu am lu dal te franchement bëgguma woon ñuul ci affaire yi parce que ma koy wëndal di wëndal ndekete tubéy yi ma sol comme dafa seere woon ma sëgg rek affaire bi ne tef teppeeku bi mu ko masque naa ko continuer fecc waa ji ci boppam moom it mu ngi fecc fecc ba ci yàgg sa gedd piste bi génn ko puisque nit ñi dañ mu mujj woon wër mu ne daal dañ may faral ko moom feccatu mu fecc ba pare ñëw di ko kiisi ndaka di tubéy ji teppeeku na ba ne ŋàlleet

daal ne kii dama koy gaar bu am leneen lu ma ci fekk fi ko fóotee ba weer ko xar mu ñëw yeey ko ba mu mokk ndox keroog yooyu wër naa xar bi wër ba nga xam ni nii bu ma ko jàppoon bés boobu te koy tëral rendi parce que dama tubéy jooju Ramacham, yow invité Sénégal Plus nous ngi là.